leen loolu defe naa am na solo nu bi ci lu jëm ci wàllu politique mm-hmm. gis nga réew mi tolluwaay bi ni mu demee na ñu bari ñoo xam te ne tiit nañu jàpp na ne élection yi du terminé jàmm soxna Seyni bu la nga gis ci élection yi lu nekk nii ci wàllu député yi waaw ba ngeen fi mujjoon de waxoon naa leen dese yi jotoon am te xam naa ne am na mm-hmm. ah, ñu bàyyi xel rek xam nga nit di nga ko bëgg kenn waxu leen ñu bañ Sonko mm-hmm. mais bu ñu jëlee tuuti leçon rek koroog ba ñu teree Sonko pour mu dem julli ji dafa dem toog moom ak ay waa këram mais ñi nga xam ne dañoo génn après ñoom dañoo ña am na ci ñi ñàkk seen bakken yàlla na leen yàlla yërëm te ba ñu ñàkkee seen bakken semaine lañ ci teg ñu woote ay bool maanaam kooku kon xale yi niñ leen di dajalee mooy sabar mm-hmm. te leer na ma ne am na ci ñi nga xam ne ñi dee xamul sax seen waa kër bool yi sax am na ñoo xamante ne nee nañu am na lu mu lu mu wund. ndax bool yi waaw wax rek ci son parce que Sénégal instant bi ñëpp dañ ko bëgg. Hmm. waaw mais nga wax ci bool parce que bool yi gars yi nee nañu Macky Sall la bëgg tojal xaw ma yëfu jinne la. non Macky Sall président la mais yàlla na ko fi yàlla jëlee. ah mais soxna Séné may ko gën. soxna Séné bu loolu rëyul. waaw dama hmm. koy wax. Hmm. ndaxte yàlla ko fi yàlla jëlee bopp. ba mu dem leneen di ko dal. mais yàlla nañ yàlla muy président bu ñu mën a supporter ñu. ndax sonn nañ soo jaaree tëli corniche bi tëli géej bi. Mhm. man bu ma fa jaaree ak sama oto dama ko bàyyi di fa jaar ndax nu muy lëndamee. Mhm. yàlla nañu yàlla muy président bu gën bu gën Macky Sall. Mhm. mais it xale yi ànd ak Sonko nañu bàyyi xel ak seen xalaat bàyyi xel seen ndey. balaa ñuy ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp ba jeex. ah mais kon gis nga ni xale yi ñoom dañu demee ah, ci Sonko loo xamante duñu jëfandikoo seen xel. ah mais yow buñ la teree def dara. comme da nga génne ay doomu jàmbur. man ma yaakaar dangaa ngaa war a fipp génnaale lu leen hmm. dal ñoom ñu dalaale la yow. Hmm. ah moom it mi ngi génn yenn saa mu génn day ànd ak booy mais bi ñu ko teree dafa dem toog. Hmm. mais est ce que du ñu escorté këram moo tax mu doon génn te booy. mu forcé xale yi dañoo forcé ñu rey leen na forcé. bëgg na defar Sénégal ñun ñëpp moom la ñu yaakaar. dafa bëgg a defar Sénégal. mais na forcé bu ko defee ay waa këram ku ci war a dee ñu demaale ñun ñëpp ñu xam ne guerre na ba am lu mu bëgg. comprendre am na loo gis ci moom ci Sénégalu ëllëg ni mën na koo yore. noo xooluma ci moom daal ndax lu tax du ragal ndax doomu lébu du ragal. Hmm. mais du ma wax ci ki nga xam ne moom la ñëpp bëgg. Hmm. est-ce que comprendre nga. Hmm. su yàggee man sama vidéo wala yéen ñi fi ñëw sax dañu leen di mere. mais comme Sénégal yëpp bëgg nañ ko. Mm-hmm. même bu sikkoon yàlla na ko yàlla baaxal. Mm-hmm. loolu lay ñaan. ah kon gis nga ni ko sikk la wala. noo sikkul. <laughs> <laughs> même bu sikkoon am na sénégalais yuy wax olof laa la wax. même bu sikkoon yàlla na ko yàlla jubal. Mm-hmm. ba nga xam ne bu ko fi yàlla taajee ñun du ñu am lu ko metti ñu am déception daal. parce que ñëpp yaakaar nañ ko man boog man. du neexal sama vidéo mais tey bu doon voté damay ñëw ma voté ko ndax moo ma taneel Macky Sall ndax nit da ngay wax dëgg. Mm-hmm. man moo ma taneel Macky Sall. Mm-hmm. mësuma sànni fenn sama carte. Mm-hmm. mais tey bu élection jotee dama koy voté. da ngay voté Sonko damay voté ah, Sonko kon yow Pastef nga bokk soxna Sénégal du cadre <laughs> Pastef laa bokk. bokkuma Pastef. mais man Sonko moo ma gënal Macky. gaa sama papa ma nga fa. yaa ngi comprendre. mais man wax dëgg neex yàlla dama ñun ñëpp dañoo war a takku ci Macky génn Sénégal génn ci suñu réew ba mu set. ndax gis nga ni sonn nañu daal ndax gis nga ni daal ni mu yore réew mi baaxul te puis xaalis bi dañoo sonn ñun hmm. ñëpp dañoo sonn ñu waxante dëgg hmm. fii amul kenn koo xam ne même bu dee da ngaa tiim say ginaar di lekk ci sa biir xeet du ñàkk am nañu ko soxla bien sûr ñu ngi kon hmm. boobu kenn soxloo ko fii franchement yàlla nañu yàlla jéggal ci wax ki nga xam ne waroo ko wax mais rek ñun de bëggatuñu Macky man boog li ma sentir tey depuis commencement ba nii waaw ndax mosuloo doy yow ndax sama yaay da doon politique mu ñëw ne ma dama bëgg Macky toog ndax dama bëgg doon fa dara. Mhm. mu may dégg. taalibe Cheikh la amul benn caaxaan. Mhm. mu ñëw ma seetal ko ne ko lii ak lii boo ko defee dina toog. Mhm. mu ne ma yaa ko wax mu ne ko maa ko wax. mu def ko Macky daal di toog mu ne ko waaye di ngeen màtt seen loxo yéen ñëpp wiccax mu ne ma lu tax ma ne ko kii nekkul président bu war a yor réew mi. gis nga kii nguuram dee yi dinañ bëri. te ay ndaw rek ñooy dee. xaalis rek moom ku mbëkkantewul doo am loo lekk hmm. boo leen ko woon léegi mu leeral leen ko man lenn rek laay bàyyi xel pour Sonko bu dee mu ngi dégg vidéo mu bàyyi ci hmm. xel mooy loo bëgg-bëgg doon dara bu mu tax xale yi ngay def ci seen bopp ñu sacrifier seen fii hmm. ndax génn leen ngeen buuxante te ki ngeen di buuxanteel ba tey moo yor caabi réew mi su ko neexee mu def lu ko neex ay doomu jàmbur te ñooñu dañ leen a jur na bàyyi xel loolu kese mm. tey soxna Seynabou ndax gis nga ni moom pare na ci troisième mandat bi gars yi di wax mm. ndax gis nga ni yow tey boo ko doon seet ndax Macky Sall mi ngi ci tànk yi wala nekku ci wala jàpp nga ni 2024 dina bokk wala du bokk comme ni ko Sénégalais yi di bàyyi xel koy xeex yëpp gis nga ko muy wax déedéet du wax Macky du wax bëggatuma sori ci biir Macky mm. ndax Seydou Gueye mi muy àndal sama nijaay la <laughs> waaw mënuma wax ci lu ci moom lu bari daal. Mm-hmm. waaw mais yàlla xam ne gën yàlla nañ yàlla muy président bu ko gën fuuf. amin soxna Seynabou li ñuy terminer mooy ñi nga xamante ne dañoo am faru rab ñii am gelu rab mu sonal leen trop am na ñoo xamante ni dañ la koy réclamer tey am na benn xale bu jigéen boo xam nee na ma képp ku mu nekkal ba nga amal ko njariñ bu defee 10 jours ak yow far ba dàq ko. am na ci koo xam te ne nee na ma 10 millions la faram digaloon di ko waajal jox waaju bare xaalis mu jékki-jékki mu daal di dem loolu soxna bu lan moo koy saafara ak lan moo lan moo waral loolu. des fois rek góor dig la 10 nga yàqamti ba jox ko sa bopp. Mhm. gu la xam du la takk. Mhm. c'est rare bu la takkee dem sëy bi du yàgg. Mhm. waaw ndaxte kenn bëggul lu bon ah. li waxante nag am na ñoo xam ne duñu joxe seen bopp. dañuy gis ni relation bi dafa jékki-jékki rek waa ji daal di soppeeku. wallaahi jamono ji fi mu toll dëkk bi sobe kase la hmm. boo génnee ci dëkk bi da ngay sax jaaxle sobe kase la jigéen ñu am jëkkër góor ñi nga xam ne dañoo am jabar bëri na daal. di moyante di moyante yàlla nañu yàlla jéggal rek laay mais loolu soxna Seynabou loolu loolu loolu moom baax na ci réew. baaxul ci réew day delloo réew ginnaaw ndaxte ku nekk des fois sa yaay dalay yar fam la war a yare nga màgg mel lu la neex. liggéeyaate rek am na ndax yàgg naa ko wax. Mhm. da ngay nekk ak sa wujju yaay ci biir kër gi mu xool la xam ne danga am avenir mu yàq la nga nekk ak sa jabaru mag xam ne sëy bi day dem yow it nga dem yàq moo tax képp kuy dund bu yeboo nga defar sa bopp fi réew mi toll moo ko laaj. Mhm. waaw te yow xam nga ni faru rab lu am la. faru rab képp ku ko am boo ñëwee dinaa ko saafara. Mhm. ci lu gaaw ndax man dama lay faj gisoo ma delloo la sa xaalis. ci ñaata jour ngay faj loolu. des fois bu fekkee liggéey bi yàggul ci yow. dee liggéey lañ la def. au plus tard mu am 40 jours ci yow soo ñëwee dinaa la ko fajal ci un mois di jour mu wér bu dee loo xam ne day durer at <coughs> loolu dina jël temps mën na jël ba 3 mois 10 jours mm-hmm. mais man dama lay liggéeyal dama lay àppal képp ku ma seetal te sa xol seddul tamit dama koy def te ku ma mës a seetal rek tuur nga sa rangoñ sama kër mm-hmm. ki nga xamante ni moom bëgg na euh, jékki na jékki far bi daal di dem kooku mën naa ko ko indi laatal si kaw ma seetal ko. ma seetal ko mhm. su ma la seetalee ba xam ne lii lu mën a ñëwaat la day ñëwaat. Mhm. mais man ma wax la li métti sa xol moo ma gënal ma jël sa xaalis te fekk du am lu la mhm. ku góor ki nga xamante ni saa bu jàppee takk soxna ba jàpp ni juboo na sëy ba yàqu kooku tamit dafa jàpp ni rab la. moo des fois ci biir famille dañ koy yàqal. biir famille ci biir famille famille léegi dañuy xeexaat. da ngay bokk ak ñoom ndey ak baay sax ñu xool xam ne da ngay dem ñu kar la. moo tax ma wax la rek fu ñu toll kenn warul bàyyi sa yaram. Mm-hmm. nga war a di defaru. Mm-hmm. soxna Seyni bu lan ngay tàggoo. waaw maa ngi ñaan yàlla na yàlla def Sénégal jàmm sax fi. Mm-hmm. yàlla defaraat suñu xel yi. ak suñu xol yi ba nga xam ne dinañu dinañu dinañu napp ci boppam daal ba ku ci nekk looy def nga def ko ak sa xel.